mbokk Sénégal yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi topp ci biir campagne électorale bi mu nekk ay eh, jotaayu waxtaan yoo xamante ni ñoo ngi koy am jamono bu ci nekk ak eh, sénégalais yi si barab yu fasantikoo di leen eh, sant bu baax aussi ci ni ngeen ñu tijjilee seen i kër mais aussi ni ngeen ñu tijjilee seen i xol accueillir ñu adhéré ci li nga xamante ni moom lañ leen di wax ak yéen bi nga xamante ni moom lañ am pour soppi réew bi gis ngeen nag bi ñu duggee Fatick ba tey image yi moom li tubaab di wax no comment la daanaka Fatick mooy dëkk boo xamante ni déficit infrastructurel bi gis ngeen ko garage bi fi la ñu nekk bi ñu fi ñëwee législative 2022 gis ngeen ko nii la meloon transporteurs yi amuñu ku leen taxawu le système de transport n'est pas réformé donc tey ñoom soxla nañu état taxaw ci seen wet lool moom moo tax ñu ñëw tey réaffirmer suñu engagement bi ñu am ngir soppi mbir yi bu ñu wóoloo dénkuñu ko ñu réformer ko ba am un système de transport très moderne dina mën a dimbali ki nga xamante ni moom moo ciy xëy di ci gont pour ñu am un système de transport loolu di am day am ay infrastructure parce que tey dëkk yi wër Fatick yëpp daanaka boo ci dem tey soo moytuwul 20 km ngay daw à l'heure ñu am besoin ci wàllu santé mu am jafe-jafe yu mag bu dee jigéen bu war a am doom nga wala koo xamante ni euh, nattu dal na jafé jafé bu mag la moytul bala muy ak depuis 64 ans c'est nañ ko population yi lool mom motax ñu bëgg ngeen changer li nga xamanteni mom moy la donne am nañu xam-xam bi bi mais surtout am nañ bi pour mën ko def l'activité économique dans cette région danaka amul c'est une région qui regorge de potentialité yo xamanteni su gungé nañ leen tay la financer li nga xamanteni def xaliss bu bari ci secteur yi nga xamanteni mom mo faire. le développement de la région nga def ci côté bi industrialisation et usines yo xamante dina mën créer de la valeur ajoutée des richesses mais surtout résorber le gap du chômage kon tay doomu fatik du soxla dem fenen. li ci gëna metti, li ci gëna metti sénégalais yi bu len kenn nax ba ngeen joom jox sen carte ko xam war len ko jox la coalition Papa Djibril Fall président reste la solution pour les élections de 2024 solution solution ci wàllu ay ndaw yoo xamante ni am nañ kàttan gi suñu borom dimbale nañu ci am nañ xarañteef bi am nañ cawarte gi am nañ yërmande bi am nañ xam-xam bi te am nañ ñu am xam-xam yi mën nañ tàll suñu loxo sénégalais yëpp yi nga xamante ni bëgg nañ réew mi am nañ yéene ci réew mi ngir ñu ñëw soppi ko Sénégal yëpp dina suqaliku doomu Sénégal mën a yëg boppam ci réew mi yokk ba yëg ko jàpp nañ ne loolu mooy aujourd'hui le combat te loolu ça passe par le combat sur toutes alimentaire mooy fexe ba nit ñi li ñuy dunde koo bayal seen bopp Nous avons un logement social un logement pour ñu permettre de ñi ñu un am kër génn cœur, kër papa mais un problème on ne le déplace pas on le règle définitivement donc il faut que nous ñi une xel mu avons une décision yi nga une ni nous avons avons une décision décision, nous mbañ une bi le 24 mars Nous nous nañu décision, ñi avons di nax nous ngi une di